ñu ngi leen di jaajëfu sunu mbokku internet yi leen di char bu baax tey nag dama fas yéene dalal benn sëriñ bu mag ñu koy naan sëriñ Moustapha Dramé gëj nañoo def moom émission dama leen di bàyyi mu nuyu teg mbokku internet bi 221 bi ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna di di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala réew mi yàlla def jàmm ci barkeet bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. seen sëñ Euh, ay fan yu ci ginnaaw defoon nañ fi ay émission ba ngay wax euh, lu bokk ci balaa yi nga gisoon ci biir réew mi ak ñoo xam ne dinañ fi wàññeeku lii di kilifa diine ak kilifa aada man nag balaa maa tàmbali balaa ma laa posé question daa am koo xam ne wàññeeku na tum nga dëkk fee Kaolack ñu ko naan Oustaz Samba Diallo foog naa ne foog sax yow yaa ma gën a xam yow mi nga xam ne yaa ngi dëkk ci Saloum maa koy jaale bokk Saloum yëpp di ko euh, jaale mbokku àddina ak waa réew mi kooku ndax xamante woon ngeen bu baax. waaw bu baax. nitu yàlla bu mag nit ku xam cër ci yàlla ku amoon daraja ci yàlla bokk na ci ñi nga xam ne tey jii man rafetoon naa njartu ne bu fekkee moom du xut bu zamaan bokk na ci ñu ko wër Oustaz Samba Diallo man dama ne bokkoon naa ci ñu rafet njortu ne bu fekk keene moom nekkutoon xutbu samaan bokkoon na ci lab daal yi war xutbu samaan ndax ni ngay xàmmeewee nit ku am daraja ci yàlla wala xutbu wala ab lab daal wala nujuba wala nuqubaaw maqaama yooyu ni koo ko xàmmee ci nit dafa daje woon ci moom émission bu mujj mu def ko barki démb rek xaw barkaati démb di tàggatoo dafa ne téere bi ma yor fas yéene naa kilifa diine gune ak kilifa aada gu nekk am ci mu ne fas yéene na kilifa diine yépp gune mu jox la ci doyut nee na ñi fa toogoon ca dajee ba nee na leen góorgóorlu leen ku ci am soxla demal Touba ca roon Sëriñ Touba radiyallahu anhu nga ñaan sa soxla ñi dëkk Kaolack mu ne leen ku ci am soxla te jokku ci kër moom na Mawlana Cheikhul Islam Baye dem fa sukk suroom ñaan soxla mu ne ñu mu ne ñu dëkk Tivaouane te jokk fa ku ci ne fa nga jokk nga am xaajo bul dem ci benn ministre wala député da ko wax sa xaajo demal caroon kooku nga sukk fa ñaan sa soxla nitu yàlla xaqat nag noo koy xëy mooy de nangul yëpp day nangul kilifa diini yi nangul kilifa aada yi seen ci yàlla moom nag loolu defam doyut nag moom xam-xam nag moom ba léegi nit ñi dañ lim xam fu mu ko jàngee man daan naa fa dem di ko siyaare ji mu daan ma encouragé ci suma liggéey daan ma gën a xelal daan ma dee timit ay yenn secret ndax moom dafa nit koo xam ne ku gis ngay dem dëggu ne daana xooy déey la ba ma njëkkee def émission la ma seetaan mu ni ma xaw ma dafa ma seetaan xaw ma en tout cas daal nit xoo na ma téléphone fexe na fekk man daan naa fa dem di ziar Oustaz Samba Diallo ndax képp koo bëgg lu baax dëkkoon tundoo daa nga dem di sukk si rom di ko ndax yàlla may na ko ci wàllu rab maanaam ci wàllu jinni wala rawxaaniya mboolem njanaaw yi ne ci xaal bi sax yàlla may na ko gune bu la xoolee xam sa rawxaaniya loolu jamaar ñoo ko seet xam nañ dafa noonu ma gune dee su bëggee yàgg ci jamono ji tur mun ne ah man ma il mu toog ci baatin bu wér xam lu ma dee waaye gis naa ne booba léegi fakkastal yi bëri na xeex yi bëri na waaye ñi may fakkastal ñëpp di xeex amaguñ amaguñu amaguñu ndam muy ni ko xam ne nag moo wàññeeku démb ci guddi ñuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla ko yàlla dajaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seex na Tijaan Si di la xam waaye en tout cas ci lislaam kàngaam ci diine ji bant bokk na ci bant yu gën a rëy ci lislaam ci diine ji faq na démb waxoon naa la ko émission bi ki génne àdduna sëñ Abdourahmane Calal Fall noonu naa la képp koo xam ne kilifa diine nga xam cër ci yàlla boo amul sens dëgg di nga dem bàyyi ñu réew mi ndax nee naa la réew moo xam ne tëj nañ jumaa ya xaddara jumaa xamatut wasifa xamatut réew moo xam ne kuréel jàng xasida amatut fa ku ne la xam na leer gu jóge ci suuf dem asamaan juróom-ñaar da lay nax buñ demee ne ba kese leer yi ke leer yi war na jóge fii ci suuf asamaan fii suuf ci dem asamaan juróom-ñaar ñu kase ko benn leer dematul kon jot nañu ci léegi nag ñu mel ni moom mii usa Samba Diallo dañuy dem geddu adduna bi bàyyi ñu ko ndax dégg naa mu ne moom dund gi safatu ko dara moo ko wax ci émission bi mu ne moom adduna bii safatu ko dara kon boobu la mu wax mooy dem gis nga nitu yàlla yi. xanaa xamal nitu yàlla bu taxawee ne yàlla tey laa bëgg génn àdduna yàlla génne ko àdduna loolu nag kenn du ko jàng ci téere yi dama la wax xam-xam xaju ci kayit xam-xam day ne sa dënn ngay dox moom ku la gis yaakaar ne nekkoo ci dara fekk ay la doon nitu yàlla yi buñ toogee ne yàlla man bisu tey bii dama bëgg génn àdduna yàlla danaan malaaka bi demal wuyu sa waa ji nga génnaat de génnaat bu set bu set. ñun nag ñun ñu xamul nag li liggéey yàlla ci baatin ñi nga xam ne jëfaguñ lu baax ci seen baameel ñooñu koo tudd dee mu mere la parce que pare wuñ ko parce que xam nañ ne baameel duñ fekk lu jaan ju jaan ju jaan ju soxor safa su tàng jër munkar ak nakiir ñëwal leen ne buggal ci seen baameel yi loolu nag ku bàyyi xel xam ne moom nga fekk ci baameel doo bëgg dee waaye képp koo xam ne ni dee moo tee yéen daal lëng la mbagam seet yàlla lëng la ah dund ak dee nga yemale loolu na cër la cër bi gën a rëy ci mboolem cër yi mooy mooy cër boo xam ne lu yàlla dogal nga gërëm lu yàlla dogal nga gërëm am na doomu aadama yoo xam ne liñ bëgg mooy ne ci jàmm rek waaye naqar ak ñàkk bëgguñ ko ku leen ko tudd ñu bara kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa Samba Diallo nitu yàlla ba wulu yàlla ba xutbu ba mën naa ne nuju baaw ba nuqu baaw ba dem na ñu ñaan yàlla nag yal na ko yàlla xaree ca àjjana ji na a ci àjj ca ci àjjana ya ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam ci maqaama Cheikh bu xaadimu rasul jërëjëf jërëjëf euh, euh, yooyu am na solo daa fu may dugg benn damaa def euh, benn remarque te li ci ëpp dama ko gis ci sant gi laaj ci def mu di mel ni li defaan xooy dañuy xam li xew loo xam ne ak seegu li lu mel ni balaa ñu war a génn ci réew mi ak loo xam ne euh, dina dëxañoo ci biir naat bi yow ma seetlu ay yoon yoon def nañ ko da ngay def émission di wax maanaam kilifa diine yi xam ne da gis dinañ dinañ génn ci biir réew mi kilifa aada te yi ngay wax yëpp ñun daam ñu loolu may yàlla nag daam foo xam ne yàlla dala ko may nga koy gis di koy wax wala danga am maam yu nekk Saalum di lay dee wala lu mu fa demee wala saltige nga actuellement fi mu ne nii xam nga yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala dara da koo safut yàlla fi mu làkk xam-xam jege saltige léeg-léeg mu wax dara sax nga dem ba ci digg ba gis na la wax amul waaye bu fekkee ci nóori ilaahi ya nga nga sëgg di naan boo mandee loo wax doomu aadama teg ci bët xam nga nit ñi xàmmewuñ sëriñ ak nitu yàlla sëriñ kenn ku ne mën nga ko doon nitu yàlla jafe te yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafay dogal ci xam-xam xeetu xam-xam yoo xam ne du ñëpp la ko mën a xamal dafa am benn xeetu xam-xam yoo xam ne yéen daal ba léegi xamulut ko ñenn ci jaamam bi xam-xam boo xam ne ba léegi bari na ni koo gis mooy doo xamul ko. bokk na ci nga gis mbir xam ko te dama la wax ne la bi ma toogee fii ma ne gis naa kilifa diine yi génn àdduna am na ñoo xam dañu ma dañu ma da ngay fen te pourtant mhm. ni ñu xamuñ ne nit mën naa fanaanoo mooy yàlla bët set naan sàngara tuxu yàmba mboolem xeetu ñaati nga def ko mais nangam am mu am nekkul sax du xaybu waxu nekkul sax waxu xaybu waaye may subhanahu wa taala la xam nga ñu bëri na ñoo xam ne fi tey jii boo noonu boo naan leen nit mën naa gis nit xam ñaata la si àdduna xam nga ñoo xam ne fekk ko te jàng nañ téer yëpp nga xam-xam ñu ngi koy bind ci fële du xam-xam nga tey jii mën naa tey jii secret dëgg xam dëgg duñ bind ci fooy xam dëgg ci ndox lañ koy bind dangay bind mu am na xeetu xam-xam yoo xam ne ku ko bind ci fooy jigéen ju ko teg ba jaasir xamoo ne am na xam na ci mbóot laa la wax yoo xam ne secret la yoo xam ne boo ko jëfandikoo wey boo fanaanee ak jigéen sax nga naan sàngara sax safut yàlla mbaax nga xam nga xam moo saf yàlla xam nga ko xam rek moo neex yàlla ci rew rawatina nga tëj ci set ak sell loolu la wax na mën naa te guni amul nag ku dama waxoon fii ne la boo demee Saloum fii mën nga fa gis mag ñoo xam ne xam nañ surtout boo xam ne tey buñ ko liggéeyoon tey benn seconde du tegu ci ci heure bi yàlla tukkal àdduna. billahi la xam na mag ñoo xam ne boo demee Saloum tey. Hmm. xam nañ secret boo xam ne buñ ko defoon tey ne yàlla tukkal àdduna. Hmm. yàlla tukkal àdduna. te moom mooma boo demee yërëm baa nga tilim xar xamul sa dépasse xamul pata boros. man gis naa góor goo xam ne billaay wal kitaay bu fekk li ma damay fen yàlla buñ defati émission yàlla mu ngi def émission tey te yàlla sama dañeen émission àdduna mostu gis Macky Sall ki tale mostu seetaan tale mostu xamut luy Facebook ak YouTube te pourtant mboolem ku war a dee ren ren bu ne bu ne la jàkk xam ko man xam naa góor gu mel noonu mooy la tam mm-hmm. moom bëggul ko ko xam bëggul ko ko gis te ñaar yàlla nit xam ko nee naa la xamul kenn ku am daraja ku nekk ku xam nitu nitu àdduna nga xamul la bëggul sax nga xam ko mm-hmm. te pourtant soo ko xooloon rek am ci moom yéen bu ñaaw sax yàlla yàlla yàlla yàlla fagaagal la mooy ñoo xam ne dañuy judd ñaar fukki at ak juróom ñu commencé jaamu yàlla ba âge ñu toll gis nga moo wax la benn affaire lépp yàlla ñu ci doomu aadama yi na bàyyi xel loolu xam-xam dafa am man bi wax loolu ci zaahir bi nag ñëpp ma la ñu gis waaye xam naa mag mag mag moo xam ne kenn xamut ko man xam naa mag moo xam ne kenn xamut ko man man man xam naa mag moo xam ne kenn xamut ku man man xam naa nit ku doon dara ci yàlla ko kenn xamut man xam naa ko man Moustapha Dalla te coole bari rek mais am na ponkal yoo xam ne nii or antin dañ may jël ne ma kookan la man aman ah, xam naa ko waaye nag du ñëpp lañ koy wan ñooñu nag ñun dañ leen di jege di waxtaan ak ñoom ñu di ñu laaj biir seen xam-xam yi di ñu jox ci seen xam-xam yi ba lu ñu wax ni ngi teg ci bët. am na benn boy boo xam da def vaar ci YouTube bi jël benn nit benn benn nit dagg ko ñëw na yaa wax nangam dafa ma tamit bakki na ma ay nit topp nañ ko ba sonn na ko doon siiwal sama vidéo pour yëpp ma vaar mënuma gisugul ma ni boo vaar billahi wal kitaabi xam na ñoo xam ne dañ ma contré. billaahi wal kitaabi man rek lañ taxaw prier bu ma vaar. loo def bañ waaw xam nga ku ñëpp bëgg nag beewoo takk seen bagaas mhm. dem topp bàmmeel xam nga ne Sénégal ñaar lañ dul xas ñaar nit lañ dul xas. ab néew ak ab dof kenn du ko xas lu ñu am noonu parce que ki dof loolu ay mbokkam bëgg ñooñu loolu lañ bëgg ki dee nag ñaw waaw moom ñaar loolu lañ bëgg kenn du ko xas ñooñu kenn du wax lu ñaw ku dut ñoom nag bëgg lu baax bëgg yegg fu baax bëgg lu baax nekk ca di ca dox billaahi wal kitaab foo jaar ay do ay seytaane fakkasta la te ñu laan fakkasta yonent bi sallallahu alayhi ba tey seeni sët yan fiy dund ku jóg jëm ci taxaw fakkasta la ne dem léegi nag xeexe nit ki ar mu amatul li am moo ci internet bi ne moo waxoon nangam fen na léegi boobu xeetu am na ne si booy si kay jawar tukamal satul fatihi yàlla subhaanahu mën naa laa dimbale doo gaaw wax lu nit weddee te sax nit mën naa dem ba jub ëllëg wax lu noonu nga weddi ko nga jaaree fa yàqu parce que léeg-léeg tafe tafetu nitu yàlla tooke la léeg-léeg bu dalee rek mën nga mën nga lakk moo tax ni ngeen di def attention. sëñ Moustapha daam ci mën naa ne politique lay lay dugg ndax damaa seetlu benn kilifa bu mag euh, ma gis ko ci biir réseaux sociaux yi muy circuler sa photo mu ngi ci biir bëggoon naa xam yéen ñaar lan ngeen seq ndax soo demee ba di jëflanteeg moom nit ñi ni la jàppee woon ak ni ñu la gëmee woon mën naa dem ba ngëmeel gi day des lan ngeen seq yéen ñaar. question boobu moom su ma ko teewoon a xam doo ma ko posé. waaw xam nga fii ñun àdduna bi ñu nekk nii man débat boobu sax maanaam question boobu du mujj sori. dañuy dañuy yàlla subhanahu wa ta'ala. Ah, non xam nga gis nga photo bi. xam nga nga kan la. waaye léegi nag. mais ñi ñu ah, ci wax en tout cas ñun. Mm-hmm. ku nekk ñuy soxla. kilifa diina. kilifa aada bari na kilifa diine yooyu gis fii dañuy oo téléphone ñu dem gis di waxtaan ak ñoom ñu conseillé ñu ci yàlla ñu yàlla kilifa aada dina wax ma seen wax voilà tout la maanaam ci question boobu. ma jàll ci beneen question aussi gis nañu def nañ benn remarque yi parce que mën naa ne léegi mu def ay mois ay mois xaw ma lan la da lëlu wala da ngaa bàyyi yu bëri ndax gisatuñ la te ñu bëri namm nañ la lan moo doon problème xam nga dañoo nekk ci wàccaayu liggéey. gën a moderniser suñu liggéey parce que man su liggéey dafa am sooxe sooxe bi mooy bi may doggoo ñoo def émission ku ooree téléphone mën ngay jot maa lay recevoir appel maa wax ak yow maa war a liggéey liggéey bi maa war a yónnee liggéey bi bu dee heure ma nekk bu dee fi nga nekk tamit maa yaa war a ñëw ma recevoir la jox la liggéey bi loolu ci kenn nit xam nga dafa métti ñu gis na loolu dafa jur ak sooxe gu rëy rëy rëy ci suñu mbiru liggéey léegi nag ñu bëgg liggéey liggéey bi. tey ñu ngi am ñetti bureau ñetti biro am nañ ko jamono Dakar ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy togg ñu ngi koy liggéey. fan la fii Dakar fii Dakar. fan ak euh, mën naa ne. Mhm. benn bi Yoff la. benn bi Ngor la. benn bi mu war a nekk Mariste incha allah taala ni ñu koy liggéey mooy képp koo xam ne da nga liggéey ak ñun gisoo sa bopp ci liggéey bi dañuy jokkowaat ak yow xool lu ñuy def ba nga gis bopp ci liggéey bi ndax kat koo xam ne yow da nga bëgg ne da oto yàlla kese wala da nga bëgg nii ñu gis seen bopp ci mbir dafa am taxaw boo war am ci sa diggante doomu muy wàllu ànd ba boo xam ne sax boobu noppi na waaye dañoo xaar ba mbiri ko ubbi boobu wàllu faju ngóor a ni ku tële ak euh, ñi am rab ak ak ñi xam rawaan yi parce que ñi nga xam ne am rawaan gu ñi nga xam ne am lu ñu yàggaa tas ñi xam ne seen yàqu-yàqu yu bëri ñooñu dafa am suur spécial bu ñu leen di ñi nga xam ne dañoo am problème bu feebul ngóoro ngóora dafa am seen suur ne spécial boo xam ne am fu ñuy fekk ñu ñu maanaam ñu liggéey leen ko ñi nga xam ne dañoo bëgg lu ni ne bayrax wala jaaro buy ubbi doomu aadama yu mel ne ñooñu dañu am bis bu ñu leen di journée mu am numéro téléphone yoo xam ne tamit ku ci oote dama jot su ma euh, secrétaire ngay jot wala sama ñi may liggéeyal ngay jot am na am numéro téléphone es boo xam ne spécial la nag man su ma numéro la ku ci oote man ngay jot personnel moo tax dans trois mois ngi nii kenn gisuñu même boo ñu sax ñu duñ la parce que dañoo nekk ci defaraat suñu liggéey mu gën a rafet gën a jaar yoon kenn ku nekk gis ci boppam ñi meroon ci suñu liggéey sax ñoo ne leen doomu aadama kat yàlla ko bind ci matati fii Sénégal kenn mun fi jóg pour nax nit ñi wala nga ne fi di tiyaane nit ñi mënul ne parce que fii yoon dafay am dañoo am police bu mucc ayib am gendarmerie bu mucc ay kenn mënu fi nekk nag di def tooxi doona di nax nit ñi te duñu teg si yoon te nag fii ñun yàlla dafa dañoo dimbale ñu toj ci xam-xam bu wóor bu loolu suñ ci nekkee dañ ko war a jaarale ci yoon ndax ay nit la ñoo xam ne même bu dul dara yàlla dimbale nañu même bu dul liggéey bi ñu liggéey dañu am suñu teranga bopp ndax tey bu dëgëroon ba dëgër ñun am nañ benn nationalité bu bokkut ak nationalité Sénégal su ngi ko ñu ne fas dem réew moo xam ne fa la ñëpp bëgg a dem loolu kenn ku ne xam na ko ku ne xam na ne fii maa fi nekk waaye suma njaboot sax nekkuñu fi man seulement ne fii sama njaboot kenn nekkut fi ñëpp ngi ci beneen ñëpp ñëpp ngi Europe kon suñu neexoon bu toll kat na jonn ñu laal suñu pays avion dem fa tëdd nekk ci beneen business mais nag ñun lii ci ne suñu jur suñu jur góor ci lii lañ ko fekk mu nekk ci mu jëkk suñu maam nekk ci mu jëkk kon ñun ci jàng alquran jàngal alquran ñaan yàlla ci la ñu nekk nag kon gannaaw bu ñu remercier ministre de la santé ci seen liggéey bu am solo bi ak médecin yi ndax kat lu lu loo bañ bañ bañ lëg waaw nangu ko aguddu noppam ñu ngi liggéey liggéey bu rafet pour citoyen yi seen liggéey jëm kanam bu ñëpp wér ñu ñaar nag wér nag ci loxo nekk yàlla nag rusul kenn ku yëndu sallallahu alayhi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala nag moom yàlla mi yor wér te rus jaamam bi di moom sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla wéral mboolem koo xam ne yor feebar nekk ci biir réew mi wala biti réew suñu mbokki Modou Modou yi nekk tamit nag Europe xam naa ke ndax suñu soxnaa nga fa bon feebar nekk fa lool métti lool nelawtuñ guddi nelawtuñ bëccëg ñu ngi leen di wax ne leen adduna bis bu nekk rek ak leçon bi nga ciy jàngal tey am na ñu def ay sketch di naan di di sabati moodu moodu yi naan waaw diw ñëw na di daw wan nañu ne ñoom dañuy feebar bi ñoom loolu nañ ci jàng xam ne Sénégalais noonu la mel ñu bëri si ñoom soxla uñu seen jëmm yi seen poche lañ soxla nañ ko jàngee ci feebar bi yàlla wan na leen ko nañ ko gis te di la wax ne leen nañ gën a góorgóorlu te xam ne dañoo nekk ci jaat te réew mi bu dutoo moodu moodu yi dana bëri kër yoo xam ne dañ sëggan kon nag feebar bi bu mu tax nit ñi bedd leen di leen daw di leen moytu te bu feebar bi jàllee nga bëgg ko xawaat téléphone ne ko ah, wax sa soxla loolu ñaaw na yées na ne leen ñuy jàppale ci jàngoro feebar ba fa nekk ne leen ñuy jàppale wéetal leen di leen ñaan yàlla subhanahu wa taala ngir yàlla suqali leen mel ni wër maa ngi ñaan yàlla nag mboolem moodu moodu boo xam ne jàng fa yéen yàlla suqali leen bii mboolem ku fa ne yéen yàlla suturaal la musal la bëggul dajeeg feebar bi ci bakki indi sans salaam yàlla mu ris ñëpp moom wér ak wér la maa ñaan ci ma xëy na ci bakki sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf